tànk nemmiku yi jëwriñu daara isbu tarxee sëriñ Youssou Diop doon amal ci Casamance ci diiwaanu Sigicoor la àggee ci suba talaata ci noonu nag la gontu jëm ci Kolda ngir mën fa àggali liggéey boobu daanaka laata jant di soow mat na li ëpp nag ci barab yi ñu dem mooy di jawbe ak kabindu foofe jëwriñu daara isbu tarxee délégation ñi ko jëkk dalal mooy njabootu Sadio kamara bi nga xamante ni kenn la ci ndaw yi ñàkk kanam ci jawbe way juróom di Bambara Camara ànd ak Moustapha Mbacke mi nga xam ne kilifa diine la ci gox bi ilimaan yi ilimaan Kébé ak imaam Thierno Aji Diallo ñoom ñëpp itam rafetlu tànk yi xalif général des mourides def ak dox gi mu dox ba jàmm ak booloo xol yi dellu si ci réewum Sénégal lu tolloo itam ñeneen ci ñoo xam ne am nañu ay gaañu gaañu ci ay góor ak jigéen diggante Diaobé ak Kabindu ba tey dem nañ fa seeti leen moom jëriñ daara Hizbut Tarqiyyah nag mbooleem ñi mu dajeel muy seeni wayjur ak ñoom ci seen bopp sax di ñi nga xam ne ñoo ci tawat wala ñaam ci ay gaañu gaañu rafetlu nañu lool tànk yi di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér tey rafetlu ba fu mu mën a yem jëf ji nga xamante ni jëf na ko ci ñoom jéego bi nag bokk ci li nga xam ne moo jeexal takk mbooleem barab yi nga xam ne waroon nañu faa dem ci li féete bët saalumu réew mi diggante soor Ziguinchor Bignona Kolda ak barab yi nga xam ne ñoo ko wër mu tàbbi ci ndigalu sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des mourides jëm ci sëriñ Youssou Diop jëwriñu daara isbu tarxiya ngir séddale ko ndimbalam ak massawam ci ñi nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan wala ñam ay gaañu gaañu ci fitna yi amoon ci weeru mars ci réewum Sénégal